dafa kaawoo. dafa kaawoo. man dee ci Sosowoo. dafa kaawoo. man dee ci Sosowoo. dafa kaawoo may. dee leen ci Sosowoo. lambaloog bi tay lo combat Aline Bayder ak nga général Diouf. combat la langue grosse combat la bu nga xamni combat bu neex la. bu am solo ci carrière général Diouf. même Aline Binder, le retour. parce que expérience face à la jeunesse dafa xew ci lamb sil bu sali doomu ties gis nga ko léegi de nga mbolo mom moom un ñuy Vous nga public. car macha allah mais dafa am domination bu nga xam ne dominé na ko Jules bu Saly depuis combat bi taxaw. Ah. ci face à face ak yëpp ah, ah, général général kon am na lu koy accompagner ci biir géew loo xam ne day am ndam très facile. boo xoolee ci assises yi ci doole kaw tolloowuñ mais noo gisee seen état de forme général Diouf moo boobu doole te kawam ak suufam yëpp a maase doole naturel la yor bu normal la entraînement amul lu ëpp ci kaw ci suuf amul entraînement bu normal la léegi nag li des mooy mbër gi ndax mi ngi fi te général Diouf Petite Côte ba muy jugee mbër mu mandiwul bëre ah, gisuma ko fi dëgg la Nder mii ci mbapat la luqi ko tey nga gis général Diouf le grand champion roi des arènes deux fois Bombardier ñëw loolu dafa am na lu mu def ci moom tey ñaare mbër moo mbër mu topp ci yow boo amul yaakaar ci moom doo ko gunge dëkk dëgg la kon loolu koof signe la signe ñu kii est sama relève oh waaw wax na ko signe ñu kii mooy sama relève Aziz Diop mais nga gis mu sol mbaxana mi waaw mooy ménager euh, président ménager région de Thiès moo ko ménager mais taxaw bi ngay gis ci moom ca biti ba ci biir géew nga xam ni xale bu nu am yaakaar la Alioune Mbaye Nder nag mbër la mu nga xam ne ci mbappat la luqi ko mais day ndaanaan def fii ay jaloore Thiès def ko Ndakaaru ba lambu national xam mais pour mu génn ci général Diouf du yomb ku ko wax day yomb da koy nax dëgg la ni mu ko dominé ci face à su doon ku ma andi fexeel ba njëkk kaa dóor laa koy wax yàq xel mi Alioune Mbaye dem njëkk dóor bu ko njëkkee dóor mën na ndam ci moom mbokku mbokku téléspectateurs borom émission bu mag bi di faqat Pape Mbengue lambaloog bu mag bi dégg nga la mu wax Pape waxaata la nga waxoon. dama ni domination bi nga xamante ne nii def na ko ko ci face à face parce que Lac Rose bu fekkee da dama laa jël ne mag nga dama lay dal ma ñëw ci face à face ma yomb fu ma yegte nag. dëgg la si sawaay day dem général Diouf day dem ba énervé wu bëgg a wax sax du xam li mu war a wax ndax yàkkamtee tàqali koog sawaay mais bu arbitre soufflé nga ni da nga ma jëlee ma dox sa kaw dóor la. yow sa day travail da nga naan kii lan la yaakaar. xalaat na xajul ci géew psychologiquement rek loolu. waay bataille la quoi bu nga xamante ne bataille psychologique la bu nga xam mooy may ndam ki nga xam moom mooy moom mooy Alioune Mbaye Nder même bu gëmul xeex. mais bu ubbee xeex rek sa waay bi mu waroon def ci kawam dootu ko def day taxaw. diggante bi mu taxawee nag di xaar xel ci xel mu sel beeg meuna a bëre gi car macha allah dina ci mën def limu mu bëgg def. mais ñom ñaar ñep ñu ngi ci forme macha allah. ñu ngi ci forme mais tolo wuñ ci doole tolo wuñ ci doole. général Diouf mo ëpp doole général Diouf adversaire mbul la dans la norme. général Diouf adversaire mbul la. wa ilaha illallah. logique adversaire bo xamni combat 50 50 wala 50 49 neuf. waaw combat bobu la won mbër boo néewee doole ci kanamam foog nga am loo ko jaaxal. kon jàppoon na général bu gën ci bi tey mën na moo mbul mën na xeeñ. mbul dafa am combat moo ko ordinateur moo ñu ci jaaxal mais tey bu rëccoon ci alin Mbaye Nder rek. waaw moo moo ki nga xamante ni moom mooy mbul day mën a taxaw. combat bi ndeysaan sunu jigéen a koy arbitre siga mais Alioune Mbaye Nder bu fi amee ndam tey. waaw combat am ak Zil bu sali yi génn fi léegi. day taxaw day taxaw. su ma la déggee affaire bi mbuur Tiwaawan la. mbuur Tiwaawan. mbuur Thiès it da ciy am yoon. waaw lépp rek c'est la capitale du rail. day digganteem ak Turbo day Tiwaawan mais bu rëccoon ci combat bi digganteem ak Turbo day mën a taxaw. at bi suuf la général Diouf samedi 9 mars 2024. Aline Mbaye Nder général waree Mbour diggante Mbour ak Tivaouane la. mi ngi noonu Lagros ñuy dégg Fane Ndiaga Ndiaye noonu ci animation ba Serigne Cheikh Niang ñu ngi koy nuyu. ñu koy nuyu di ko jaajëfal. bi am na solo. gis nga Nder taxawul. taxawul moom Aline Mbaye Nder day dagg Leewtoo dox latéralement. parce que général Diouf da koy cadré. Ah. fu mu ko fekk làmb ji jeex balaa déclenché moom war na bëri ji moom Nder. kon général mu kilo si gëm. lii mu def mooy yoon da ko war a da ko war a cadré rek xaar bu waree dóor dóor bu waree. song Ali lii laa bañoon mais Alioune Mbaye nag dañu moom ñi mu war a xeex ak def la war a def fu mu fekk Alioune Mbaye ndeer da ko fay war a jëlee ci làmb ji mais ndeer nag màggatu ko kororoj la dafa mën a bëre lu xikoo ci mbabat. ña nga ca Aïdara ngay dóor waaye dóor fa ko zil fa fa ko général fermé moo tax loxo géné boobu dugg ci biir bugguma ko. waaw ah, ko bugguma ko ci doole te wet gi da koy jege. saa saa xëccee bu tafee placage ak loxo bi làmb ji day jeex. oh léegi làmb ji. ko bàyyi. na ko xar jotu ko. xar na ko jeex na. xar na ko jeex na. oh daan na jeex na Lagros. général Diouf jeex na Lagros. Bombardier bëgg na. jeex na Lagros. Bombardier bëgg na. bu Alioune Mbaye Nder ci jeewoon mi ngi ci géew a dafa daan. waaw bu Sali daan. ki nga xam ne ba nga doon wax naa la ku topp dëkk ak dëkk. ma ngay woowu sax Alioune Mbaye Nder fair play Bombardier nga wooyu Alioune Mbaye Nder Alioune Mbaye Nder am na lu ko naqari waaye léegi lii mooy làmb lii mooy làmb ji dama frère xoolale. eh Sène nuyu na la. maa leen Sène la. Ah. maa leen di fay. maa doo ndax combat yàlla may si ndam. noo waajee waaw maa ngi sant yàlla maa ngi santaat yàlla di santal yàlla suñu borom bu baax a baax yàlla moo am ndam di ko may yàlla may na ma ndam mais wax dëgg neex yàlla maa ngi sant sama maam Cheikh Thioye Faye Diouf di sant sama sëriñ sëñ Fall combat dama si daj ay coono yu métti sama père dama teg ay coono yu métti mais tey nga am combat gëstu gis Bombardier est-ce que pression bëriwul woon sa kaw non non mënut a bëri ah. waaw maa ko ñaan ah. heure may bëri day day def lépp ah. ñëw gunge ma ma ne ko tey père mu ma am ma ne ko damaa bëgg tey jii yaa waaj a génn lam am te daa war am relève tay ji mbëri mag li def maa la ko ñaan tey papa defal ma ko yaa may teewal ma na ma ndax tey yaa may si tuuree ko de maa ngi sant nag monsieur le maire mais li nga bëree li nga bëree ñëw ci li nga bëree waaw lii retaas ma lii billaahi wallaahi taalaa similiwu ma sax arbi su ko topp ko xeex ak moom jàpp ko daan lii lañ ma yónni nañ ma dafa na ma buy xeex parce que mbuur da laa sas te dama bokk si relève bi du ma ndax loolu yàlla moo koy def bu ngeen bëggee lu neex. laay gote général Diouf. laay gote dara dàq ko biir kees yi. kon nañ ma jox numéro. Siri Diakhaté nañ ma jox avance laay gote ma fanaan wala Thiès la wala Mbour. ma ni Thiès gi laa ko fekk si Thiès gi. waaw Thiès gi. waaw laay gote du fekk du fekk général Mbour. non non ñemewu ko. non non ñemewu loolu. non ñemewu ko. moo ko indiwaat nii ma ko indee nii. non non ñemewu ko Siri Diakhaté na ma jox la avance laay gote. maa ngi sant waa Mbour yëpp. sant sama nijaay bi sama sama bàjjen Ayda Diagne maa ngi koy gërëm bu baax mais avance lay côté ku la ko jox di ko jël boo ko jëlee nee na ko ay côté bu ko joxee mu yóbbu ko yàlla nañ dem kawo kawo kawo dafa kawo dafa kawo man tey ci sa dafa kawo man tey ci sa dafa kawo may tey leen ci sa